عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bëgg nañ ci lool jàpp nañ ne sëriñ bee teew itam sëñ Moulay mii nag ah, jëf ji nga xam ne jëf na ko maanaam as lëf la ci ci yéeneem as lëf la ci yéeneem ndax nit la koo xam ne ku yàgg yéene lu mel nii la nga xam ne bu yeboo ma ne la ba ñuy waxtaanee lu jëm ci jumaa ji ak lu defar jumaa ji ak lu jëm ci Touba bu may seet ma ne mat na quarante cinq ans ndax ànd nañu lu jiitu nuy denc man ak moom ñu dem ba dem Europe mu nekk fee ma nekk fi ba mu yàgg ñu dajawaat continuer di waxtaan ci lu mel nii nga xam ne rajo bi ñuy wax rajo Lamp Fall moom la njëkk xalaat ne day créer lu mel noonu pas pas turu Lamp Fall wi mais nan créer benn rajo boo xam ne Touba moo ko tax a jóg moom mi waxtaan nañ benn du ñaar du ñett li nga xam ne mooy Touba ci kanam itam. waxuma tur wi ci boppam waaye niñ ko tege ak jëf ji ban koy waxtaanee ca Marseille boobaak léegi mat na 40 ans wala mu ëpp muy wax nuñ koy doxalee ba nga xam ne dañuy seet murid bu ne ñu laaj ko quarante francs par par par par mois ñuy muy nekk ca loola nekk ca loola ba ji yéene ji rëy na waaye yàlla dogalu ko mu jógee te ñëwat ne damay taxawal benn agence de voyage boo xam ne damaa bëgg bu na demee ba ca kanam. nuy déparé Touba nuy départ mu am départ boo xam ne Touba lay déparé minal ma xadim ilal maxdim ilal maxdum ba ubbi muy ubbi agence bi ñëpp defoon nañ ne man mii ci ñi nga ñi nga xam ne yërëman naa ko ci laa ci laa bokk ndax demoon na ba day soxnaam si nga xam ne moo nekk Marseille day jël xaalis ba xaalis ba mu war a dunde di ko xaaj di ko yónnee mu di ko def ci agence bi di ko fay ay nit ba yàlla dogal pèlerinage bi mu jëkk a def xeral li li li li jóge ci man munu ma ko ba mu demee ba ba ma seetaan film bi màkka mënatumaa téye sama bopp ndax na mu ko waxee woon noonu la ko yàlla doxale lu jëm ci jumaa ji nag noonu la demee yàgg na koo xalaat foofu mu toll nag mi ngi ciy xalaat guddi ak bëccëg waaw kon loolu moom mën nañ koo seede ci moom ak yeneen yu baree bari yoo xam ne mënee sugoo lim waaye nag lépp luy jariñ mm, eh, jullit yi la luy jariñ Tuubaa la kon loolu moom lu ci yàgg la kon lii bu amee nii li ma wér mooy la mu yéene woon lii 10 pour cent la ci xañ na jamono nag mooy doxee noo xam ne li ngay bëgg ak li ngay man du du tolloo waaye li ma wér mooy lii matul 10 pour cent ci li nga xam ne mooy li mu yéene waaw loolu daal moom mën na koo seede ci moom di leen sant bu baax sëñ Afi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëñ bi ñu leen di seet bu baax Mbàkke waaw di sant bu baax a baax a baax a baax nag waaw nu ngi nu ngi jàpp ne Serigne Mountakha taxaw fii si suñu wet noonu lañ ko gisee kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant leen gërëm xanaa danoo manewul wax nag waaye li nu guux li nu guux lépp ak li nu xam ci moom ah mënuñu koo génne mënuñu koo génne. jërë ngeen jëf. maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. Eh, sëriñ Moulay ñu ngi lay delloo ab nuyoo yaag kilifa yu tedd yi nga àndal di leen delloo itam ab ziyaara bu baax ci turu sëriñ Afia ak turu sëriñ Abo mii taxaw ak turu mboolem ba Muxaddamatul Xidma gépp di amaan mbégte lool nag ci daja bi ñu dajawaat tey jii doonul bu njëkk eh, lii am na ay yoon yoon xalaat bi ñu rek mi ngi njëkk rafet ci ba nga taxawal assance bu toll nii eh, nga xam ne fu ne mënoon na fay déparé waaye sa gis-gis egg ci ne taalibey sëñ Tuubaa yi di jóge fii ci Serigne Touba di àgg ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu demee ne ko Serigne Touba nuyu na la te muy dëgg ndax ci moom lañ mujj a jóge xalaat boobu rek dafa doyoon sëkk yaakaar naa keroog bi ñu fi njëkkee daje fii ñu war fay déparé ñu fi njëkk a déparé lim ba sax doxatoon mu bari lool waaye keroog donkoñ yu bari dal na ci den ndax xol yu sedd ak lu ñu yàggoon a mébét ñu bari yàgg koo xalaat yàgg koo bëgg waaye suñu borom sottale ko ci yow loolu nag lii sa mbokk mu baax mi wax léegi da koy firndeel mooy yàgg yéene yéene ju rafet yàgg xalaat looy doxee jëm ca yàlla di la dimbale ba nga agsi mu nekk lu am solo ndax nit yàgg naa xalaat lu rafet waaye di dox jëm ca waaye yàlla mu may na la xalaat ko dox jëm ci suñu borom may la nga àgg kon loolu ak jant yàlla gu rëy rëy la waaye ki fi nga ko defee day fa ko jar ki nga ko defalit di ko ko jar koo xam ne dara du ci dugg ci moom di réer du dugg ci moom rek te pas-pas ba sell kanam rek lay jëm te gëm nañ ne pas-pas bu sell moo la ci dugal ndax diiru boobee ak léegi mosuñoo gis nga dem ñëw te andi lu jëm si ci barab bi loo xam ne da nga koy njukkalee barab bi loolu moom mën naa wax ne at yi ñu déparé fii dem njëkk yëpp da nga fiy andi dara xanaa ren kay dafay yokk dafa yokk ba ñëpp xam ne yokk na waaye yaa fi njëkk andi indi fa boo xam ne mat na mètre ak genn wàll wala ñaari mètre nga xam ne dañ koy jiital dem jiital lu man ñaari mètre yoo xam ne day set ba ñu fi bale yoo xam ne yu yaatu lay doon mën a bale karo mën bale moket bale mi fi indi fi ay serpillères yi nga xam ne moom la ñuy nettoyé ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne lu ci ne bu ñëwee nii lii doone ki man tey nga lay doone ki man tey ca yooyu lii nga fi indi tey nii xam naa yaa ngi koy fàttali waaye indi woon nga fi ndaw indi woon nga fi ndaw ba ba mel nii mu mel waaye yii ñuy jëfandikoo ci ndaw yi fi nekk nga xam ne dafa am ay ruuj di daw yooyu yaa ko fi andi woon tey jii nga dem xool yi gën a moderne gën a dëppook jamono gën a am solo nga andi ko mu am ay yokkute yu bari nag yoo xam ne seetlu nañ ko ci biir yi nga andi loolu nag day wane rek ne mbir mi yitteel na la yitteel yoo xam ne waxtu wu ne yaa ngi xool nu mu gën a baaxee nga di ko ni defee Sëñ Tuubaa li gën a baax la yàlla wax lu fa ku koy tànnal ku nekk da koy la gën a baax ndax loolu mooy li mu yàlla wax yàlla wax barab bi itam di barabam li sëñ bi yàlloo rek mooy li barab bi yàlloo moo tax ku fi andi la gën nga fi andi yow nag seetlu nañ ne waxtu wu ne da ngay dem tànn la gën te bi nga fiy jógee waxoon nga lu bi ñu wàcc escalier bi ne woon nga fas naa yéene di bu may ñëw am na yoo xam ne ni dam surprise lay doon dama maa ngi koy gis di ko xool ci internet beeg nag ak xool ko bu ma koy amee dimbale ma ba ma am ko de dinaa ko andi su ma andi da ngeen xam ne andi dimbale la ci barkeb Sëriñ Tuubaa ba loolee nga sottal ko kon nag ñu lay sant bu tur Sëriñ Afia di la ñaanal suñu borom yokku defal leen dimbal ndax yéen ji ci am ak euh, loo ci sonn jàppale su fekkonte ne euh, taxawuñ li ñu war a taxawee na mbir mi du mën a sottee ni mu war sa yéene dana mat sa bëgg-bëgg dana mat waaye euh, du mën a sotti ndax lii mënoo koo taxawal yow dong kon ñoom itam ngi leen sant baax sëñ ñu ngi ñu fi ñëwee di départ bi war ba ji ñu war a jox barab am solo la suñ ko defee ñoom ñañ àndal dañ leen di topp teel loola kon loolu sëñ ci turu sëñ Afia lañ ne woon danañ ko ci sànni sant leen gërëm leen ñaanal leen ci barke Cheikh Khadim suñu borom yokk liggéey bu baax a baax a baax a baax di lii nag euh, sëriñ bi ci boppam ba muy man moo daan jógal boppam bagage yu mel nii su ñëwee mu ñëw fii bunt bii toog na fi ba tey mu benn du ñaar euh, nangu ay bagage fekk nañ ko këram ak ay oto mu génn ci këram ba ci buntu kër bi taxaw jël caabi oto bi ngir jëm si ngir jëm si ngir jëm si jumaa ji dugg sax ci biir toog di ñaan loolu kon su demee ba tey ak ni mu xate ak ni jamono xate mu jël ko sa ci moom rek di ab jarbaatam ak mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal yëpp leen fii loolu day firndeel rek ne yitte joojee mu amoon démb moom la am ci liggéey nam nam ko ñore woon noonu la ko ñore ba tey da ko bàyyi mukk du ko fàtte mukk kon moom it ñu ngi ñaan suñu borom mu yokk ko yàggal lool yokk ko wér ñu ngi lay yóbbante ay cant ak ay ngërëm ak ay ñaan di gën a jëppalaat suñu bopp di gën a bàyyeek suñu bopp di gën a am yaakaar ci moom bu baax a baax asalaamaaleykum wa أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت اليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداد الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر ولا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في السريع نجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكون يا مالكي يا خالق الأنام أمت هواي قلل منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة مرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم